asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar fii ma taxaw nag moom mooy fi nga xam ne nii moom moo di biir CNC li tax ma taxaw fii nag defe naa ne ñee nga seen ñu toog ay arbitre lañu voilà arbitre yaa ngi nii yàgg maar ak seen président Sitor dafa am coow li dafa jógoon coow li jeex na léegi macha allah mais fan yi dañu gisaatoon ne arbitre yi dañ ne bu lii amul nangam bar la suite ñu gisaat ne arbitre yi dikkaat nañu. maanaam mbir yi rëfarit na dikkaat na normal maanaam jàmm am na léegi. ba waaw dañ ko gisoon ci ay journaux. journaux yooyu moom ñoo wax loolu sax mais loolu moo seen waral seen daje fii en tant que ay arbitre. waaw suñu réunion hebdomadaire lañ ñëw ñun arbitre parce que semaine bu nekk dañuy dañuy dañuy tenir réunion. waaw léegi moom lañ def si ni réunion arbitre la réunion hebdomadaire bu réunion CNG jàllee le lundi le mercredi ñun arbitre yi dañuy daje. waaw waxtaan ci lépp ci journée yi jàll ak suñuy problème ak yëpp daal waaw. tey su ma la laajee en tant que arbitre li jot a am passé na passé nañ ko d'accord mais ñu ngi wax ci beneen page léegi actuellement tey yéen loolu jàll lu ngeen ci jàngat ak li ñuy dund ne actuellement lu ngeen ci jàngat. waaw euh, dañuy sant yàlla rek euh, sant yàlla julli ci yonent bi euh, lii tey jii comme li nga wax am nañ ci jàngat effectivement mais duñ def lu dul gërëm aussi ñi nga xam ne. Euh, vraiment ñoo fexe ba jàmm am waaw gannaaw yàlla daal euh, am na ñoo xam ne dox nañ ci tànku jàmm bëri nañ nag yéen si ngeen bokk journalistes yi am na ñoo xam presse en ligne ak presse sportive ak ñëpp wax nañ ci euh, am na ñoo xam ne ay promoteur lañ am na ñoo xam ne ay mbër lañ amul daal ku ci jàppul Sénégal bi yëpp presque wax nañ ci léegi ba loolu féete ñu ginnaaw duñ def lu ñu sant yàlla ministre bi presque mun naa wax ne gàcce ngàllaama lu tax ma wax ko mooy euh, réussir na loo xam ne dafa difficile fexe na ba boolewaat njaboot bi yëpp mu nekk benn parce que boo xoolee fu nekk xëccoon na mu dem benn waa léegi mu fexe ba dajalewaat ñu ñëpp fexe ba ñun ñu dellusiwaat ba ñuy arbitre nii ba léegi loolu yëpp féetu ñu ginnaaw duñ def lu dul di ko ci gërëm di ko sant parce que moom ak boole yi ñi mu àndal CNG ah parce que tey jii CNG bi ni bureau bu bees bi euh, biñ leen installé aussi def nañ le tout ba récupérer arbitre yi toog waxtaan ak ñoom tënk lu bees xool nan lañ mun a def doxalin boo xam day rafet ñëpp kontaan euh, waxtaan nañoo ñun échanger nañ ci lépp bi saison bi di waaj ubbi nag toog nañ di waxtaan effectivement comme ni ko nit ñi di waxee nekkul woon ne dañ doon wax problème arbitre mais dañ doon wax ci ubbi taayu saison bi maanaam fexe ba waxaat lépp li nekkoon problème pour mu bañ ci am mais nekkul ne dañ doon werante ci arbitre yeeg non mais loolu ci la bokk. loolu ci la bokk mais li liñ ubbite bi nan la war a mun a demee ba lépp dox ba làmb bañ a sooxee ba nga xam ne vraiment ñëpp dinañ kontaan te du am benn frein ci loolu lañ doon def réunion yu mujj yi te alhamdulilah ñu ngi ci sant yàlla déggoon nañ rek ci ci affaire yu bëri comme ni ñu waxee rek am na tey jii loo xam ne ñun du yoon mayuñu sax ñu toog naan ñoom duñ ko nangu parce que lu tax fi ñu jógee la ak ci li ñu nekk parce que fi ñu jógee mooy am ay sanctions yu daloon suñu kaw ay affaires yu ñu doon kii ñu xool gis ne. làmb ji presque lépp lañ wàññi lépp lañu changé léegi ñun tam ñu ne ñun waruñu nekk en reste maanaam tey jii dañu wàññi licence yi wàññi promoteurs yi licence yi fi wàññi wàññi lañ wàññi lañ lu bëri léegi ñun mënatuñ toog fi naan nañ ñu defal yi nañ ñu defal yi am na loo xam ne nag def nañ ko déjà assurance yi mooy lu rëy loo xam ne vraiment arbitre yëpp assurer nañ léegi ñëpp assuré nañ loolu duñ def lu dul sant eh, vraiment ministre bi ñu ngi koy gërëm ci loolu moom ak bureau bu bees beeg yooyu léegi nag ñun suñu liggéey fi mu ne nii mooy fexe ba làmb jëm kan prime yi léegi waaw yooyu yëpp am na lu luñ ci yokk mais ñun xam nga rek xam nga affaire yi moom lu ñu la mun a jox du doy mais nekk na loo xam ne dañuy puusaat waxtaan bi rek parce que comme ni ma la ko waxee ñëpp mënuñu mënuñu wàññi fépp ñu gis ne dañuy yokkal arbitre xooy day niru leneen day mel ni ñun yëguñu lii xew dañoo yëg li xew na moo tax ñu nangu leen après xam ne tôt ou tard loolu yëpp dina dina réglé parce que volonté bi am ci CNG bu bees ak ministre bi Euh, wane na ne ñun lépp lu ñu bëgg daal incha allah dinañ ci taxaw parce que ñoom luy doxal làmb rek moo leen tax a jóg moo tax ñu am yaakaar ñun tam démarrer continuer waxtaan bi waxtaan la rek maanaam tey jii assurance bi ñu doon coow rek gis nga loolu rek régler loolu rek vraiment lu rëy la voilà. Euh, tey fi may jeexal ak yow mooy saison bi ubbi na macha allah ubbee ak lit simple kere ñu dem terrain gaal gi yaa nga foon ñu gis mbooloo ma fa daje ak mbëri ni ñu bëri mu mu dem ba déborder. ba sax lu ne mënoon fa am boo xoolee ay yàqu-yàqu yu bëri am na fa ba tey ñu ngi dégg promoteur bi di wax ne perte na plus de deux millions et quelque ci ay matériels yoo xam ne yu fa yàqu la loolu yéen lu ngeen ci jàngate ak terrain gaal gi nu ngeen ko gisee yéen tamit en tant que ay arbitre. waaw dafa am loo xam ne ñun en tant que arbitre euh, mun nañ ci wax am yoo xam ne nag euh, côté supérieur lañ ci mun a waxee maanaam CNG mun na ci wax euh, mais ni ñu li ñu gis daal mooy ci organisation bi amoon mooy nit ñi dañoo namoon làmb parce que biñ ñëwee ñëw nañ ak doole. ku nekk bëgg bokk ku nekk bëgg a dugg am place bi ko gënal xam nga nekk na loo xam ne dafa daf ñun daf ñu dem ba dépassé ñu parce que boo xoolee nit ñi niñ def dañ dem ba xajatuñ foofu xajatuñ fa nag en fonction de lii am la mooy loo xam ne kenn sóorul woon ne xëy na dina am mais organisation moo demee noonu di nga sóor dara leneen rëcc la leneen leneen ak leneen mais du woon coobare kenn ñu gis wa loolu parce que xëy na am na côté boo xam ne Euh, bii di ñëw war nañ moo nooy def ba loolu yëpp du ci teelaam parce que gis nañ ne bi ñu bàyyee bunt bi ñooñu dañoo ñëw déborder commencé romb borom chaise yi après finalement mu dem ba romb euh, presque enceinte bi léegi mais nekkoon na loo xam ne géré nañ ko bien que am na lu xewoon mais géré nañ ko ba mu yegg ak jàmm boo xoolee am na final am na lépp loolu rek duñ def lu du sant yàlla ba pare jël ay mesures ñun arrêté nañ xool li manqué woon yëpp ba nga xam ne bu amaatee dinañ ko régler incha allah.

moo tax am na affaire yu bëri xam dañ ko xaw tënk sax mun naa wax moo tax léegi samedi dimanche yi presque mun naa jiir nañ te dinañ dem ba ci kanam mercredi yeeg jour yëpp la ñuy song waaw incha allah. mais namoon ngeen affaire yi daal tamit daa mel namoon ngeen public gu làmb. waaw waaw namoon nañ ko ñoom tam namoon nañ ñu parce que keroog bi ñu ñëwee euh, nekk na accueil bu neex bu rafet yoo xam ne ñëpp kontaan nañ gisaat arbitre yi parce que am na ñu ma laajoon nee ma est-ce que yéen da ngeen di ñëwaat man ak yoo xam ne vraiment ñëpp kontaanoon nañ quoi. et ba tey duma jeexal fi sénégalais yi bi ñu leen aj nañ leen nangam sangam défendre bi leen sénégalais yi défendre yéen euh, euh, lu ngeen ko gisee en tant que ay sénégalais. waaw mooy ni ma dooree rek maanaam dañu dafa nekk loo xam ne ñun sax dafa laal suñu xol parce que gis nañ ne nit nga jàpp ne li liñ la def du yoon euh, nga wax yow rek nga wax mais Sénégal bi yëpp jàpp ci d'accord ne du yoon ñëpp féete suñu wet ne nii nañ leen delloo seen place ñii vraiment liñ leen teg neexul. Euh, nekkoon na loo xam ne ñun daf ñoo marqué ba tax waratuñu woon def euh, faux pas maanaam ku ci nekk mu ngi doon xaar après loolu lan ngay def après loolu nan ngay réagir euh, ñun duñ def lu dul di leen gërëm parce que sénégalais si boppam moo bëggul injustice fu mu gis injustice rek da ci jàpp loo mun ta tollu nag nga nekk ku rëy nekk ku tuuteeg yëpp ci yem voilà nekkoon na loo xam ne dafa tooy suñu xol parce que gisoon nañ ne population bi yëpp ñun lañ àndaloo. léegi nag looloo tax nag ñu waroon tey xam ci lan la ñuy dugg bañ a yóbbu affaire mu nekk ci situation yoo xam day délicate ba nga xam ne day jéggi làmb ñun nag loolu lañ bëggul woon famille la woon bu réeroo woon ministre bi dajalewaat na ñëpp jubaat la ñëpp ñu dellusiwaat suñuy activité voilà. drapeau de l'État am nañ information ne que day am le 28 le 29 ba le 30 mai ca Kaolack am ngeen information. <laughs> kan moo ne wala waaw. ci journaux yi effectivement toog nañ waxtaan ci jël ay date comme niñ ko doon defee rek souhaité nag ñu yegg seeg jàmm loolu rek la. le 4 afril Lac de Guiers Eumeu waaw combat la comme yeneen combat yi rek xam nga gars yi comme ni ñu namee woon yenn affiche yu mag yi euh, on va gérer ñun en tant que arbitre on va gérer l' essentiel incha allah. bu ñu dafay arbitrer combat yooyu. waaw combat yi yàgg naa ko wax ah. combat yooyu souvent supporters yeeg yooyu mooy tax mu jafe mais ci arbitrage du jafe. c'est que day am nit yoo xam dañu am fu ñu féete bugg gagné kut ko kut ak lu munta xew ba finalement dañuy fàtte texte yeeg yooyu loolu rek la mais du nekk lu jafe si arbitre. am na beneen boo xam ne sénégalais yaa ngi xalaat mu jafe bañ na xajul fii muy Modou Lo Ama Baldé. waaw combat yëpp xaj na fi bon léegi nag sa dépendra ci ni ko nit ñi di gisee mais période mbas bi gars yi dañuy def le tout ba yenn ba stade yi bañ a bondé nit ñi sol masque loolu nag moo ci gën a am solo fi mu ne xam nga jamono ñu toll nii dañuy lancer message ñëpp muy arbit muy ñëpp pour solu masque boobu respecter mesure barrière lu am solo la ci làmb parce que tey jii bu ñu demee ba ubbiwaat euh, ji c'est parce que dañoo bëgg ci période bi ñu nekk nii. bañulu état bi bañul bañul dara ci côté boobu mais dafa bëgg au moins comme que ñu ngi dem ñu respecter mesure barrière yi parce que tey jii nit ñi ñoo doon laaj lii na lamb am na lamb am kon nag bu demee ba am na nit ñi vraiment respecter mesure barrière yi sol masque raxasu sorante waaw léegi nag loolu moo tax nag yee xëy na côté boobu lay xaw a métti parce que nombre bi ñuy bëgg am duñ ko mun a am ci stade yi parce que bu boobaa distanciation bi du jàll waaw léegi nag euh, ku nekk na xool nan lañ ko mun a gérer ba nga xam ne nit ñi nañ kontaan ñëw stade te loolu yëpp du ci am parce que ñu toog ba ne làmb ji moo taxaat ba feebar bi yegg fii wala sport bi moo taxaat ba feebar yegg parce que sport comme ni ñu ko xamee ni ku ku sañoon danga fay jóge def li lii lii la gënal delluwaat sa kër ak jàmm. ba yaa ngi lycée Seydou Nourou Tall defe naa. waaw maa ngi lycée Thiel professeur lan. waaw ah, professeur éducation physique la waaw. ba yaa ngi ci cours maa ngi si cours maa ngi. kontaan ci yow. waaw man tam maa maa leen gën a kontaan. jërëjëf